mbokk yeeg xarit yi seetaan ak suivre saa su nekk rek euh, solution TV solution info nuyu nañu leen euh, beneen yoon euh, bi ñu comme nañ ko tàmmoo di defee rek altine bu jot man Madjikène ak Alaaji Sanjoogu Meng ñëw ak yéen ci l' des émissions tey nag ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen dem nañ ba di waanu diwaanu Ceskaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport. ñuy leen ziar leen ñanal leen jàmm di ko ñanal nag suñu sëriñ bi sëriñ si di mu sëriñ Abdou Lahad mbakkee yàlla suñu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njabootam bis ko si biir këram te koy ñaanal mboolem xalif fi ci biir réew mi yëpp nuyu nañu sénégalais yëpp yi nekk ci biir réew meek ci bi ci réew ziar leen ñanal leen jàmm ay ca noonu la ñuy def rek daal di koy bàyyi mu nuyoo ak internet yu ñuy suivre moom euh, Sa Ndiogou Mbengue maa ngi lay nuyu di Euh, ma jigéen ñi ngi lay fay di am mbégte ak kontaante ci yow di dem ba Touba Mbacké nuyu xalif général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ak waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ xarit mm-hmm. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad ñu koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ziar bu wér nuyu sëriñ xaadim na ca kër ga di nuyu njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm nuyu nañ sëñ Abdou Karim Mbàkke borom Makarim wax laa nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp mm-hmm. Euh, di am mbégte di nuyu sénégalais yi yi nga xam ni ñu ngi ñuy teewlu sa su ne ci l' émission des émissions sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ca bitim réew. Mm-hmm. Euh, nga xam ni fu ñu tourné ñu ngi ñuy bàyyi xel. aussi tamit euh, di ñu bàyyi xel bu baax a baax di déglu li nga xamante ni bii mooy sunuy xalaat mm-hmm. waaye it léeg-léeg ñu yokk ñu it xalaat waaw ci seen i commentaire ak yëpp ñu koy rafetlu moo xam ki ànd ak ñun moo xam it ci àndut ak ñun parce que réew noonu lay doxee kenn yorut monopole vérité dëgg ku ne am nga sa dëgg dañuy wax ni dëgg bu doon jaay lamb ndax ku ne sa bos doy na la mm-hmm. donc euh, loolu di lu am solo kon bokk euh, ñu ngi amaat mbégte di jàkkaarloo yow macha allah Mbengue euh, noonu la ñuy ziare nag euh, ñi nga xam ne rek ñoom la ñuy àndal ci liggéey bi muy Modou Diouf Abdou topp ak Abdoulaye Diallo euh, tey nag l' émission des émissions daana waxtaanee nag ndaw si ñuy wax suñu yaay jooju di maam Diarra Fam demoon keroog ci aljuma ji ci émission bi ñuy wax Ndoumbelane ci fa ay kàddu jëmale ko ci ki nga xamante ni nii moo nekkoon ci gouvernement bi nee na nag mënul nekk avocatu opposition bi muy Mimi Touré nee na nag. dafa nekk ci mission boo xamante ne ni mission commandée la mu ñàkk ko wóolu ci doxalin bi muy doxalee ak euh, opposition bi ñu nemmeeku jamono ji te ñuy xeex léegi léegi daañu ci ñëw mu gën a yaatoo Bassirou ay fay manifestation ba amoon fële ci Kër Massar ci ay weer yu ñu romb. moom nag joxoon nañ ko micro mu yëkk ci ay kàddu jëmale ko ci président Ousmane Sonko ngëm-ngëm bi mu am ci moom ak yaakaar bi ñu am ci moom ba ni moom la ñuy samp ah, tey jii nag kàddu yooyu la ñu indiwaat fa seen leen ko tegal alaaji indi ci xalaatam léegi léegi lay doon ñu jeexalee ko nag ak chroniqueur yi nekk ci sit internet yi ak rajo yeeg télé yi. kàddu yi ñu doon faral di yëkkati ku ci mel ni Cheikh Yérim sekk ndey fàttu Ndiaye ak Aliou Sow waxoon nañ ne carrément kii di Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne ni tey conseil constitutionnel daal di nay valider candidature am mu fas yéene dem ci élection yi ne woon nañu carrément bu du bokk ci yile élection léegi léegi daal nañ leen dëgtal kàddu yi nga xamante ne nii jotoon nañ ko yëkkati ñoom ñëpp su ko defee rek alaaji daal di ñëw indi ci xalaatam ñu door waxtaan wi ak maam Diarra Fam mi nga xamante ne ni ko dégg PDS ku nekk rek doo ko ca génne kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci Mimi Touré daal di del si léegi léegi. naaw benn maire jékki-jékki moom chaque timis chaque takkusaan chaque tisbaar c'est lui qui se en grand foulard robe bu matul jiitu sol ay coquette dem euh, siège APR ni day tontu ci Ousmane Sonko parce que ne détenait qu'elle ne détenait pas le carnet de visite de Sweet Beauté parce que nangam nangam cette dame cette vipère elle s'est transformée du jour au lendemain aujourd'hui l'avocate de l'opposition c'est Mimi Touré Mimi Touré ne peut pas diriger l'opposition j'en doute fort ils sont de connivence pour renvoyer ces élections ah et bon? je suis content je me contente quand Ousmane Sonko a dit retirez mon nom de ça ça c'est Ousmane Sonko mais Massamba Sarré a signé këy bi mu ngay wax. ah moi je connais Ousmane Sonko. ah si Massamba. Ah, moi je dis bien quand Massamba a c'est pas Ousmane Sonko qui signe. c'est deux personnes différentes. ah man je ne suis pas le pasteur je ne suis pas là pour défendre. Ah, mais je connais bien Ousmane Sonko ci ci ci côté. yu Sonko n'est pas d'accord. dama il ne su ne d'accord il n'est pas d'accord su d'accord da ah, l'expression que Macky avait dit. je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression Mimi Touré est de tout faire pour séparer diviser l'opposition en faveur de Macky pour mu renvoyer élection elle est en mission commandée dans l'opposition <laughs> non je ne crois pas ça non yéen a nit yéen a assemblée ma toog Farba Ngom une fois deux fois trois fois j'ai été chez elle jox naa ko saaku xaalis c'est son modus operandi diviser pour après sous table encaissé nit ñi lu tax du ñu nekk xel di xel li xool ni li Mimi Touré ñu def am na ku mu profité elle mène le débat directement vers l'annulation de ces élections. et si Macky Sall le voulait. ben mais c'est ce que j'ai dit quand même. mais c'est ce que j'ai dit xoolal li tubaab bi naan comprendra qui pourra. Mhm. parce que quand jërë ngeen jëf euh, Modou Diouf alaaji dégg naa nag euh, kii nga xamante ne ni moo di euh, maam Diarra Fam kàddu yi mu yëkkati jëmale ko ci Mimi Touré mi nga xam ne ni démb Macky Sall la doon àndal di ŋàññi Ousmane Sonko nee na tey jii nii dafa nekk di diviser après pour mu mën a dem ñu jox ko xaalis ba tudd na sax fax ba Ngom xaalis yi mu doon wax ne jotoon na ko def nee na daal nekkul koo xamante ne ni mën na war a mën a taxaw tey di nekk avocatu l'opposition bi <coughs> waaw xam nga wax moom dafa am yu bari yoo xamante ni parfois mën na laxasu ci biir uh, wax ji mm. xam nga boo seetee wax ji man gis naa ci ay mbir mm. yu wuute par exemple mën naa wax ni e, xam nga jigéen ñi moom lu ne la ñuy wujjee waxu kujjee feeñ na ci wax ji maanaam démb moom moo taxawoon ci wetu place usmaan Sonko ah, tey gis na keneen koo xam ni ah, ah. taxaw na ci loolu mu fàttali ko ne ko ba may taxaw di xeexal Ousmane Sonko booba yaa nga yoroon carnet di wax naan duma kiiwu yoruma kiiwu suite beauté et cetera pour fàttali ko loolu loolu moom waxu jigéen la joo xam ne eh, maanaam tiiraange am na parce que jigéen ñi loolu seen mbir la daal maanaam bu ñu jegee nit ba ci yàgg gis seen moromu jigéen di jege dañuy commencé di fiire waaw loolu mooy li nga xamante ni bi moom la moom la moom la wax ci wax ju njëkk ji mm. euh, leneen li nga xamante ni bi gis nañ ko tamit wane na tamit waxu tamit euh, ku jàppal nit ki mer mm. waaw parce que ba muy wax zipp baak yooyu boobu mooy jamono jëm mi mi di lijjanti mbirum Karim Wade maanaam loolu foofa la ko meree woon loolu moom wax la joo xam ne bii eh, mi ngi koy fàttali boppam démb ab taxawaayam bi nga xam ne moom la doon def bi ma àndeek ak sàll di xeex opposition bi bi Macky Sall waxee ne dina rendre opposition bi à sa dina réduire opposition à expression et cetera loolu moom la koy fàttali ne ko yow bokk nga ci ñi nga xam ni eh, jëfee nga loolu tey doon nga doxal mbir moomu maanaam loolu eh, diggante PDS la. ak Mimi dañoo am problème ñoom PDS ak Mimi waaye nag ni ñu war a am problème man li ma ci jaaxal mooy man dañu dama jàpp ni ñoom dañu waroon a am problème ak ki nga xam ne mooy njiitu APR mais waruñu am problème ak kenn koo xam ne kii euh, kuñ doon def loo rek muy def maanaam ki daan def loo ku defe naa ni kooku mooy war a nekk ñoom seen problème parce que ñoom defe naa ni xamee nañ ko noonu beneen bi nag dafa nekk loo xam ni moom lu am solo la muy ñetteel bi muy Mimi dajale leen ci loo xam ni buñ ko ci toppee ci report élection la ñu jëm te loolu mooy li nga xamante ne bi foofu la indee problème mu xaalis baak pour fàttali gars yi affaire Farba Ngom yi mu waxoon ak yooyu euh, daal dee wax ne li Farba waxoon daldi di soog ci mbir moom mais nag loolu moom jar na def taxaw seetlu. Mm. parce que Mimi fi mu toll nii ngir mu raxas boppam wane nii intérêt Macky Sall taxut mu jóg. lii nga xam ne mi ngi koy jéem a def na ko jël teg ko ci suuf lii nga xam ne ñoom moom la ñuy woote parce que am na loo xam ne kenn du ba warta bàyyi nit ki mu daal di ci jafandu parce que ñoom jamono jee passé rek retiré nañ fi seen plainte boo xamante ni bi dañ doon ragal jafandu am ci pour ñu reporter élection yi fii nag ñu nar a topp nii buñ ci toppee mm. ci loolu lañ jëm seen collectif bi dara waru leen lu dut ñu dajaloo yéem a fexe ni am na koo xam ne moo leen teg lu leen naqari te ki leen teg lu leen naqari moom lañ bëgg a dem pour waxtaan ak moom kooku du leen tegaat leen lu ko maanaam moom lu mu leen di tefaat lu ne rek moom da ciy jariñu ba pare mm-hmm. waa bu ci munta jariñu du leen wut seen lu ne parce que naqar gi mooy ki leen ko teg waaw comme ki lay ko teg nag ci moom nga bëgg a dem pour mu régler la sa problème te moo la teg problème bi booy boo nga xam ni mënoo faa am ndam li ngay jàpp ni même loo fa mënoon am nga jàpp ni am nga fa ndam ndamam la moom maanaam moom mooy delloo mbir mi ci boppam kon donc loolu waruñu ko ko may donc ñoom li leen war mooy jéem a dajaloo ñoom collectif bi sept candidat boo xamante ni bi moom la ñuy àndal ci élection yi nga xam ne ñoom lañ jëm ngir fexe xeex li nga xam ni moom lañ leen teg yu mel noonu bañati fee am parce que Sénégal loolu mooy li nga xamante ni bi moom la soxla parce que ci côté boobu boo seetee Maam jaaral day am raison ci côté boobu nga xamante ni bi moom la jam Mimi kooku nag Mimi nag man pour man bu ma doon moom damay jël affaire bi ak philosophie mm-hmm. xam ni ci biir li may def am na loo xam ne am na lu muy nuru parce que bi mu waxee ne kan la yëf yi di profité ñëpp ki ñuy gis rek mooy président ma Sall la ñuy gis kon lool nag moom ginnaaw moom dafa am lu ko naqari président Macky Sall teg na ko lu ko naqari ginnaaw bi mu ko wërloo réew mi yëpp mu wëral ko ba noppi mu jël la nga xam ne moom la liggéey jox ko ki nga xam ne kii moom la ñuy wax Mamadou Mame Diop xaw ma daal di koy jox assemblée nationale ba taxoon mu mer génn Amadou Mame Diop ba tax mu daal dee génn euh, daal dee dem demal boppam donc tamit moom war na mën a continuer xam ni kat am na loo xamante ni bii noonu la war a doxalee parce que sinon bu doxalee wul noonu rek nit ñi dañuy retourner xel yi lii Mame Diarra di xalaat. peut-être da ko xalaat wax ko mais nit ñu bari ñu ngi koy xalaat aussi tamit ci suuf na xam ni maam jaara li mu wax ni kenn la rek ku joxe gis-gisam ak xalaatam ci ay jëfam te nag am na sénégalais yu bari yoo xam ni partagé na ak ñoom loolu ah waaw loolu moom bu yeboo mu bàyyi ci xel. bu mhm. baax a baax. ayca mi ngi noonu euh, ñu daal di dem nag euh, ànd ak ki nga xamante ne ni moom moo di Bassirou Diomaye fay ci kàddu yu mu yëkkati woon fële ci Kër Massar dellusiwaat. salaamaaleykum. gars yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen wax ne ñii ñu lim fii seen bakkan rot pour projet bi 2021 mu am ñi ci daanu ay jàmbaar am ñoo xamante ne dañoo am ay gaañu gaañu ñii ñu dagg seen tànk ñii ñu dagg seen loxo ñii perte seen bët bu amee lu mu bëgg day mel ni ñoonu dañuy dee ci dara est-ce que di ngeen ko nangu est-ce que loolu di ngeen ko nangu. kii mooy suñu candidat kii mooy suñu président 2024 kii la ñu bëgg kii la ñu fal kii la ñuy aar demul fenn day koy aar ba ñu fal ko jox ko réew mi kon président Ousmane Sonko Sénégal a ngi nii di la déglu. ayca mi ngi noonu Alaaji Euh, dégg nga kàddu yi nga xamante ne ni dañ leen ko dégtalaatal tey rek comme sa internet yi jote ci ba nga mën a jox ci sa xalaat muy que ni jamono bu muy waxlee ñoom peut-être xalaatuñu woon ne tey jii nii dinañ egg fii tey Ousmane Sonko ñu génne ko ci élection yi ñu jëm ñu ni kan la ni samp ñu ni Bassirou Diomaye fay mii doon wax kàddu yi mu yëkkati. waa xam nga li am solo. mooy Bassirou euh, Diomaye Faye. moom la Ousmane Sonko tànn maanaam pour ñu voteel ko parenage mu wëlbatiku tey nekk candidat bi nga xamante ni bii moom mooy ki bawoo Pastef Bassirou Diomaye Faye moo jox Ousmane Sonko micro bi kon Bassirou Diomaye Faye moo nar a jox Ousmane Sonko réew mi parce que boo dégloo li mu wax. ci injustice bi nga xamante ni bi euh, teg nañ ko sénégalais yi maanaam moom moomu moom ci jëmmi boppam dalay wan ne la réew mi euh, dana ko jël aussi tamit teg ko ci loxo yi Ousmane Sonko waaw buñ ñu ko falee falee dafa gën a neex dama jàpp ni man sunu borom euh, dafa ñu defaral ci beneen angle boo xam ni Eh, bu kii la xam nga Bassirou Diomaye bu faloo dafa am fu ko nit ñi di xaar dañ koy xaar ci institution yeeg lépp mu jubbantikuwaat ko teg Sénégal ci raay xam nga état de grace bi ñu doon wax xam nga paren saa yi am na ñoo xam ne dañu xalaat rek ne ko dafa war a ñëw rek yëf yi dox maanaam Bassirou day teg yëf yi ci yow ci njub yëf yi tegu ci njub diirab juróomi at man loolu laa bëgg te noonu laa ko xalaatee Ousmane ko dem élection sénégalais yi teg ko ci loxoom mu def ñaari mandat Basiiru dellusiwaat su Basiiru dellusiwaatee xam nga ñaata mandat lay mën a defaat day mën a defaat ñaari mandat bu ko defee Pastef yor réew mi diirab ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne bi danañ teg réew mi ci njub te lépp amut lenn lu ñuy jalgati di puus ay kiiw ak di changer ay constitution ak yooyu yëpp du ci am te mën nañoo yor réew mi ñaar fukki at ak juróom am nañ ay tet yoo xam ne bi mën nañ ko yor adéet ah, mais c'est dama laa jox yëf yi ni nga xam ni noonu la war a demee rek non non parce que tey xam nga non c'est que situation bi dañu jàpp ni situation bu bon la am na ñoo xam ne dañu jàpp ni du situation ba te situation jàpp naa ni mooy situation bi suñu borom tàllal réew mi ngir réew mi jóge ci kii maanaam dem ci njub ba faw gis nga ñaar fukki at ak juróom bu ko ñii yoree réew mi mën nañ ko teg ci yoon woo xam ni Sénégal fi lay jaaree jag ba faw te am nañ fi mu toll nii possibilité def ko. li nii day bëgg a nuyu la Ablaye Wade waxoon de. mais bokkul xam nga Ablaye Wade dafa amul ñu ko ko doxalal mais ñii da xool yëf yi ni mu demee man la ne Basirou def juróomi at. xoolal Basirou ci boppam. moom mooy jël nguur gi teg ko xam nga nu mu koy tegee. maanaam du dem élection. mais seen candidat dañ koy jël mu nekk Ousmane Sonko li Sénégalais yëpp bëggoon tamit daa dee ñëw. Ousmane Sonko bu defee ñaari mandat. moom it dootul mën a demati élection Bassirou soog ñëw nag léegi lan moo tax maanaam Bassirou mën naa nekk ci réew mën naa yor réew mi 15 ans. waaw d'accord léegi lan moo tax bu Bassirou toogee yow selon ni nga koy xalaatee nii après mënuñu jël keneen ku dul Bassirou tegaat ko nag. ah non c'est que yi il faut ñu mos Sonko loolu de loolu loolu moo nekk ci boppu Sénégal moo nekk ci yaramu sénégalais il faut ñu ñam ko te Bassirou xam na loolu quoi. Bassirou moo la gën a bëgg moom tey moom xam nga mm, leer na ma mënoon na faru sax balaa muy def ñaari at mu bëgg a jox nguur gi Sonko mais loolu boobu baaxul bi gën mooy ñoom ñu téye réew mi xam nga man li ma bëgg rek man ma jigéen mooy réew mi hmm. tegu ci loxo yoo xamante ne loxo yu jub parce que dañoo yàgg 1960 mën na gën dañoo yàgg ci ñu ñi nax bu ñu amee yenn façon mu nit ñi ñooñu xam nga tey bu ñu ñëwoon Sonko na nekk président def troisièmement xam boo day jalgati yoon waaw comprendre hmm. tey bu ñu ñëwoon Bassirou yor na réew mi ngi dox na def ki day day jalgati yoon mais ci seen biir bu fekkee ne bi mën nañu teg yàlla tegal nañu situation boo xam ne mën nañu yor réew mi teg ko ci njub pendant loolu maanaam mën na defar lu baree bari ak pétrole bi ñu am ak gaz ak suñu ressources yi ñu am mën nañu teg réew mi ci siraatal mustaqim d'accord alaaj loolu pour mu am il faut ñoom ñu liggéey a baax non non liggéey liggéey Sénégal leen rek la ma wax la leen sénégalais yi pare nañ pour liggéey li la koy wan xam nga mooy lan maanaam li fi jóge woon ay xaalis dañ koy lijjanteeg dañ koy làqaat ci sénégalais yi jóge nañ foofu de mm-hmm. maanaam yow boo koy lijjanti sax danga leen di soof sénégalais yi fi mu toll li ñu bëgg mooy nit koo xam ni euh, nit ku jub la gis nga dama gis euh, dama gis euh, benn reportage bu def ci famille Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. xam nga lu ma doon xool mm-hmm. dëkkuwaay bi village may xool dëkkuwaay bi quoi te Bassirou Diomaye Faye nekk inspecteur des impôts mais bu ma xoolee dëkkuwaay bi dama ne vraiment ñii ay gor lañ parce que am na ñoo xam ni tey place bi mu occupé bu ñu fa occupé woon ñu ngi ci beneen niveau de vie bu extraordinaire. waaw moom wax na ko sax. comprendre nga. Mhm. maanaam dalay lay wóor ne la li ko Ousmane ko defaloon témoignage daal di ñëw waat ne leen mën naa leen a waatal ni seen doom lekkut fiftinu jàmbur mhm. maanaam boo gisee. ñu wan la environnement bi da ngay xam ni c'est vrai tey jii am na nu ñu doon wanee environnement bi rek mu weddi wax ci nga xam ni moom la Ousmane Sonko waxoon mais bi ma gisee man loolu laa doon xool dama ne vraiment vraiment vraiment Sénégal am na ay nit ñoo xamante ni bii euh, jub nañ parce que am na ñoo xam ni leer na ma ni ba soo loo jiitu impôt moo leen fa jiitu fuuf te fi mu toll nii boo demee ci seeni kër kii doo ko xàmme ndax na muy mel ak mel ni panaal donc daf lay wan ne la am na ñoo xam ni li nga jàppee yow àddina problème mu ay matériel ak ay kiiw ak yooyu. moom d'ailleurs nekkuñu ci situation yooyu je pense ak Maïmouna Ndour Faye mu ne carrément man jomm naa di nekk foo xamante ne nii samay waa kër famille du nekk ci condition yu ma nekk. voilà waxoon na ma dégg ko. loolu c'est très important. kon donc fi mu toll situation bi mm. euh, mën na nekk situation bi gën. yàlla baax na su ko xam nga yàlla. <laughs> Ah. xam nga Sénégal parensaay. Mm-hmm. Eh, am na loo xamante ni peut-être nit ñi. tey jii mënoon nañu toog Sonko falu rek ak li nga xam noonu la ko gars yi contré ñaari weer rek ñu commencé manipuler waaw mi ngi nii li ñu doon wax mi ngi nii lu mu fi def xale yaa ngi nii kërëb kërëb mais yàlla indi na benn mbir moo xamante ni bii tey. Mm. Basiru mën na falu nit ñi am na feneen fu ñu koy xaar. parce que bu boobaa du nekk Sonko mais nit ñi am na fu ñu koy xaar ngir mu am temps jubbanti yenn yi. Mm. te bu boobaa tamit nit ñi seen bët Sonko rek lañuy xaar mu ñëw. Mm. balaa muy ñëw fekk na teg na lépp ci raay. incha sunu borom mën na ko. Mm-hmm. mën na am yàlla moo xam li gën ci ñun. Mm-hmm. mu tànnal ñu. Mm-hmm. topp sunu bëgg-bëgg. parce que parents ay nit dina bëgg dara te fekk na loolu gënul ci ñoom. donc sunu borom mi xam li gën. te sëriñ si nga xamante ne bi ñu ngi ñaan di ñaan li gën ci réew mi mm-hmm. mën na am nii la gënee ci réew mi kon dañuy wëlbati ko accepter ngëm-ngëm googu waaw di jàpp ni daal ñaar ñi ñu ñaar mm-hmm. na yëg ni kenn lañ waaw loolu la Ndiaye di wax ñaari nit yoo gis rek dañu njuwu ñaar tey kenn euh, en tout cas yàlla na yàlla suñ borom bi def li gën ci réew mi yëpp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 gëw ma ne da nga mën nekk candidat. waa parce que faaw ñu dimbali leen ñu gagné ñoom sax seen stratégie loolu la. xam nga bu ñu jëlee Bassirou Diomaye Faye yóbbu ko directement mu def parrainage citoyen ñu garder seen parrainage par des élus mooy ñoom xam nañ fi est-ce que da nga wax parce que dafa am beneen cartouche bu ñu denc. mooy wut euh, solution parce que ñoom duñu dem. le plan B peut-être. le plan Z kay parce que même B bi baaxul. bi ah, baaxul Bassirou Diomaye baaxul ah. parce que parti bi nga xamante ne moo ko bëgg a investir dañ ko dissoudre nan ah. nan la ñuy jëlee parti dissoudre ko ak motif yi nga xam ne moom la ñu évoqué pour motiver dissolution boobu parti boobu di investir nit ñu ne eh, non ci texte laa ko teg parti bu ñu dissoudre képp ku ci bokk tukkee ci parti boobu ba un an munoo participer ci élection loolu ci kii bi la nekk ci code électoral bokk ban texte ko wax non dama bëgg nga ne ma texte bi moo wax loolu électoral bi la nekk ban texte wax loolu ci article day faatu bàyyi leen di jaawale jaawale wu ma jawaay du def du def non pour quel motif waaw loolu wax pour quel motif jomaay du dem parce que xam fa lay xam nga na réew mooy passé bi ay Aïcha mi ngi noonu alaaji dégg nga kàddu yi nga xamante ne nii sax Yérim sekk Ndeye Fatou Ndiaye ak euh, Aliou Sow yëkkati woon nañ ko nag euh, ñoom dafa mel ni nag fi ñu nii temps bi yay na leen ndax lañ doon wax tey ak li ñu gis vraiment wuute na lool. Euh, dafa am mission bu ñu doon dox rek te réussirul hmm. parce boo jàppee ni lii ñuy wax nii. wax la joo xam ni seeni waxa maanaam wax la juñ leen waxloo wax yi ay xibaar la yoo xam ni joxe ko mais nag pour manipuler la woon rek manipuler askan wi parce que manipuler askan wi mooy préparer woon askan wi ci ñu xam ni waxutuma la Sonko mais Basiiru sax du dem loolu mooy yow dugal nañ sa xel moom éliminer nga Sonko ba noppi maanaam ne Bassirou du dem léegi nag parce que dañoo am en face parti boo xamante ni bii tey lañ na dañ ca am Pastef loolu c'est très important parce que Pastef euh, dañu ko wane ni ñu ko wanee mooy depuis que ñu leen di wax wax ji ba ñu bari di jàllale xibaar yi du ñoom donc bari na ñoo xam ni fu ñu toog dañ lay wax ne la waxuma la sonk waaye Basiiru du dem kenn ci waa Pastef du dem képp ku xamante ni kii sax njort nañ ni yow mii Sonko jege nga ko sax doo dem maanaam yokkoon nañ ko sax ba foofu maanaam ñiy wax ci mbedd bi sax ñoom dañ ko gënoon a yokk sukkandiku ñu nag ci li ñëw ne dañu du parti bi Diomaye mi waaw xam nga loolu moom bu dee ci xam-xam sax taxawut loolu moom defe naa ni wax nañ leen ko waxati leen ko maanaam juriste yi expliqué nañ waxati nañ ko maanaam ñii li ñuy doon wax ci bànneexu bàkkan ki leen ko dox ci bànneexu bakkan rek la ko teg tegu ko feneen amul feneen fu ko teg fu dut ci bànneexu bakkan moo taxit bu ñëwee di wax bu ñuy argumenté amuñu sax ay argument pour dëgëral wax ji nga xam ni moom la ñuy wax day faatu ma doon xuus ba wax naan xaw ma lan ci kii gis nga bañ ko laajee mënta indi luy firndeel waxam ji maanaam ñoom ñëpp dañ ko tegoon rek ci maanaam dëkk bi nii lay doxee nii lay doxee lu neexut ki du fi am lool foofu rek mooy li nga xam ne fa lañ ko tegoon léegi nag Pastef it ñoom it dañoo def mbir mu am solo parce que bés bu waa Pastef teeloon a découragé wu ci candidature Ousmane Sonko dañuy éliminer Diomaye mais la fet ko ñu topp ko ba yëf yi sës maanaam dañoo xeex ba costé hmm. bañ fa tollee nag ba ñu fa tollee ci lañ ne ñaar ñi moom ëpp nañu kenn mënu leen a éliminer ndoo donc nañ éliminer kenn looloo sabab élimination Ousmane ko bàyyi jom loolu moo jàllale jomaay comprendre nga mais fekk na la ñuy def sax jàpp naa ni mooy doon li gën bokkul nag ak li ñu gënal mais mais lan moo tax souvent yow ngay wax ne candidature Diomaye moo gën a nekk danger que bu moo gën a nekk danger parce que xam nga lu tax Lionel Jospin dafa fay nekk France war a jàmmaaroog Jacques Chirac comme sénégalais yi moom par exemple dañuy jël référence lu bari kii intellectuels yi dañuy jël <laughs> dañuy jël dañuy jël dañuy jël référence ci France. comme ñun Bawol Bawol yi ñu nit ñu jéem a jël référence ci France pour wax leen Lionel Jospin. sondage yëpp dafa joxe ni Lionel Jospin moom mooy ñëw deuxième tour wane ni Lionel Jospin maanaam day génn deuxième tour maanaam militants yi xëy jàpp ni Lionel Jospin moom day jàll demuñu voté ji ñëpp loolu lañ jàpp papaay Marie Le muy Le Pen moom ci boppam génn deuxième tour parce que ndekete gars yi voté ji wuñ parce que li leen war a motiver ñoom jàpp nañ ni deuxième tour la ñuy xaar pour jëlee fi Chiraat mais premier tour moom gagné nañ ko ba noppi maanaam dañ ko gagné ba noppi te kii maanaam Sonko bu nekkoon candidat maanaam am na patriote yoo xamante ne bi sax mën nañoo topp ki bi jàpp ni gars yi dinañ def affaire maanaam gars yi day mm-hmm. mais ak Bassirou Diomaye Faye kenn ku nekk yaay ñaax sa bopp du du yaay ñaax sa morom de kenn ku nekk sa bopp ngay ñaax ne man maa war a dem ngir lijjanti mbir mi loolu moo tax ma ne la candidature Bassirou Diomaye fay moo gën a grave que candidature Ousmane Sonko parce que man gëm naa ni bu Sonko mënoon a gagné cinquante huit pour cent Bassirou mën naa gagné à soixante quinze pour cent waaw gëm naa loolu gëm naa ni sonk lu mu mën a gagné Bassirou mën naa gagné lu ko ëpp parce que day nekk loo xam ne nit ñi dañuy voté ji c'est pour dagg ay jéng rawatina détenu yi. parce que xam nga jéng kan la ñuy dagg. Mhm. jéng yi ñuy dagg mooy jéngi Ousmane Sonko mi ñu jéng ak détenu yi ñu takk nit ñi dañoo dem ngir voté ji ngir dagg jéng yi. waaw. Sénégal dañ ne yeewi askan askan wa ñu tëj sénégalais yi dañuy jóg ngir dem yeewi ji leen. macha allah loolu mooy li nga xamante ne bi mooy li am solo. jërëjëf ñu bàyyi la nga tàggatoo. waa di joxante dig daje incha allah beneen altine ci kàttanu borom bi. incha allah jërëjëf. jërëjëf euh, Alaaji di rafetlu bu baax a baax kàddu yeeg xalaat yi fi yëkkati di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéen ñu doon bàyyi xel di jaajëfal itam Modou Diouf Abdou Top Laye Diallo di leen jox dig daje beneen altine ci l' émission des émissions incha allah.